ñëpp ciy dem te xam nga ni dina jafe ci ñu bëri ci candidat yi est-ce que dina yombal li nga bëgg yow. alors bu ko defee kon. waaw euh, li nar a am mooy euh, jafe-jafe yooyu di jalu ci yoon wi di jalu di jalu di jalu ñu jëm élection. Mhm. bu nu yeggee ca élection jant so ñu ne ga sàll Sall gañe na yaakaar nga ne loolu réew mi dina ko nangu <laughs> alors attention. <laughs> attention Pape nañ def affaire bi ci yoon rek. vraiment ma ne législative bi ñu ne Macky Sall gagné na lan. législative bi ñu ne Macky Sall na nan la réew mi def. ma ne Abdou Diouf non dama la laaj. ma ne législative bi ñu ne Macky Sall na. dinaa ñëw euh, Abdou Diouf perte na élection dem mi ngi fii amul benn problème Abdoulaye perte na élection dem mi ngi fii amul benn problème moom mii bu pertoon élection yi aussi. ko ñu xam ne moo ko gañee gars yi félicité ko mhm. mais su ko gañewut na mu ko defoon ak Abdoulaye Wade mhm. quel problème problème problème bi kay yéen la waaye du moom yéen la ñu wax lan mooy problème bi parce que tey bu fekkente ni ci candidature yi ñi nga xam ne ñoom nga àndal ci PDS nee nañ Karim Wade mooy seen candidat su nekkul candidat élection du fi am kon quel est problème du moom nga ko war a wax yéen ñi ànd ci opposition bi la ñu war a laaj lan mooy seen problème parce que ba léegi candidat bu taxaw. suñu problème suñu problème mooy. <laughs> yéen lañu war a laaj problème waaw man est-ce que bëgg ngeen dem ma rek def élection yi ci jàmm déglu ma rek. mu jeex déglu ma déedéet jàmm kay du ci am. tànn ku ñu naa Karim Wade ne ko doo doo doo doo doo bokk ci ñuy laaj. dem ca code électoral ba daal ne balaa nit mën a doon candidat day bindu ci liste Karim Wade dem ca Koweït. bindu ci liste mu ñëw ndakaaru benn fonctionnaire génne bigam ci poosam effacé Karim Wade ci liste bi xam nga loolu amu ci droit daal di koy na fay ñukk effacé ko ñoom ñoo waroon a dem tribunal ne ah kii kat bindu na ci te waru cee bindu tribunal atte ko defuñu ko dañoo jël seen bit effacé ko mi ngi mel ni kon ñoom mën nañoo fanaane effacé la effacé ma effacé Moussa. effacé Jean effacé bu ne wax nañ motif attends ma ñëw rek effacé bu ne wax nañ li ko waral may ma ma ñëw. déedéet dégg nga ba ñu defee loolu ba noppi. waa des dem porté plainte tribunal ba ne incompétent maanaam mënuma koo àtte ñu jóge ca booba tribunal dem cour suprême cour suprême ba ne mënuma koo àtte kon fu ñu ko mën a àtte. kon yoon taxu na ci Sénégal gis nga cour suprême boobu ngay wax ne wala moo ne nangam nangam cour suprême condamné wu fi gouvernement bi ci juróom-benn téeméer yi euh, euh, ndaw ñoo ñu nekkoon. ak euh, éducation nationale def stage. Mhm. pour pour mën a jàng ak éducation nationale. Mhm. cour suprême condamné gouvernement bi ne recrut delloo leen ces jeunes la ci ci ñu ñu def seen stage. Mhm. ministre bi ne loolu yi cour suprême atte man ministre bi duma ko def ba cëgu ndara kam te ba tey mujjul fenn Macky Sall jàppale ko ca mhm. député yi APR ca assemblée voté résolution contre la décision de la cour suprême mhm. mais dafa kenn mënuta euh, qualifier loolu kenn mënuta wax loolu lu mu tekki ci am réew kon nag ñoom boo detteelee ñoo detteel tribunal bi léegi nag après ñu ne opposition bi yéen nag tribunal bii nu detteel nun yéen lu mu lu mu dogal na ngeen ko na ci dox man nag su dogalee du ma ci dox waaye yéen lu mu dogal na ngeen ci dox lu loi amatu fi doole moo fi am mais doole nag attention reenu ñàmbi la tey ah. damm foo ko foogewut